waaw maa lay fay gerte. mbër loo raw bés bi. waaw maa ngi nii de waaw. bu génnee ci combat bi fu mu jëm. ah man grand combat lay bëre sama morom yëpp bëre nañ grand combat. dama war a bëre grand combat man kenn mënu ma. damaa xeex sax ma génne si làmb ji mais kenn mënu ma. looy wax say supporter. samay supporter maa leen nan toog dal xam maa ngi ñëw retour de sem la du du ay caaxaan. waaw. baax na jërëjëf. boo jëm tey gis nañ tuus mu neex. lu waral waaw sant yàlla bu baax di jënd bi sant sama ñaari waajur sant xarit yi sant àndandoo yi sant dëkkandoo yi bu baax a baax waaw. mais xam nga Sadio Mer Serre xaw ma ko sax xam naa ko nii nii nii rek parce que nee na déglu leen lu métt dégg nga loolu la indi lu métt bëgg ndax suñu tubaab boo juum amateur yi namm ko tey mu ñëwaat tey lan nga fas yéene amateur yi. dal yaru tey bëre. daan ñibbi kese. kese wax sa loo koy yóbbu dara na dëggal moom rek na dëggal moom rek bu ñu jéppi daal bu ñu jéppi ndax dañ ñoo fay mu am ngoru jël ma bu ñëwee fii na taxaw dëgg boppam man du ma caaxaan bu taxawee rek yaa ngi li ko combat bi moo dàq ci làmb ji barke suñu Tuubaa Ai, ai, ai, ai, ai, ai, Thank you. Demet, Demet, Demet. Demet. Demet. Hey, Demet, Demet. Just play right. ngi leen di fay sama gars yi. waaw Alpha Dieng doomu Ndiouga Dieng di bëggal Sénégal Alpha Dieng ñu tuddee ko euh, drapeau tey lan la yëg Alpha Dieng yëg. xanaa kontaan lool sama yaram daw ndax làmb ju toll nii fay production sama frère jox ma drapeau bi jox na ko Sénégal mais jox na ko Cap ñaari mbër yu mag nag diggante Boy Dioum ak Zëm ma sawar ci loolu ndax ay champion lañ kontaan na El Hadj Ndiouga fa mu tëdd kontaan na Sénégal kontaan na. Faye production nii mu def danañ ko def ay ati at bu baax a baax a baax incha allah jërëjëf Faye li ñaan ñu dem kon yàlla yàlla doon na si ko léegi nag ANACIM dem na taxaw présenté ko ana ana ana kii sama gën ya lépp kii ngi nii su ko defee nga yee ci ba turin bi parce que fekk dafa ñu àggale ay ca booy njum ilaha illallah waaw Zomb. ak Boy Dioum. waaw ndeysaan arbitre. waaw ndeysaan Zomb Zomb door na. Zomb ak Boy Dioum ndeysaan daw na jàppante. waaw Zomb. waaw Boy Dioum la ngemb Zom la ngemb ndeysaan waaw Zom moo mooy ki nga xamante ni moo niroo Koña waaw Boy Dioum mooy ki nga xamante ni mooy ndaamal màcc li Zom waaw ñoom ñaar kenn ku nekk am nga ngemb Zom ak Boy Dioum Zom ak Boy Dioum waaw Sam ak Boy Dioum Sam ak Boy Dioum waaw dañoo daw rek xeex daal di muy ñaari ndaanaan ndeysaan ñoom ñaar dañuy njëkkalante combat bi ndax drapeau bi kuñ ko moo tax Boy Dioum mooy ndaamal màccali muy xale bu waa ndaanaan ndaanaan yaa ngi waa alaaji maa lay ziare ci la ne papa mbaa yeeg jàmm sama nijaay ma alhamdulilah mbaa yeeg si jàmm waaw bu waaw booy jum mooy nga xam ne dafa ñuul waaye la waxee waaye sa jëm tamit la safee kaani Diop ñaar muy ñaari ndaanaan yu boole ñaari naataango kii ndaamal màcc la waaye kii da koo xaw muy ñaari xale yi nga xamante ni tey kenn ku nekk sa palmarès ci làmb waaw suñu papa jooju nga xamante ni. ku yàlla baaxal moo jaar suñu kanam dañ koy jàppee ne moom mag la rek. waaw diggante Samb. waaw Boy Dioum Samb. Samb Boy Dioum. Boy ndeysaan booy jum ndeysaan ñoom ñaar ngi cokkaasante ñoom ñaar ñi ngi cokkaas booy jum sab booy jum am na ñaari ngemb sam am benn ngemb waaw sam ngi cokkaas waaw. waaw Boy Dioum am na ñaari ngemb. Mass. Boy Dioum am na ñaari ngemb waaye sa mamugul benn ngemb rek la am. xam nga Boy Dioum lenn moo métti ay combat bu du bëri combat bu combat bu yomb. diggante ba Boy Baldé arène dañoo xeex ba ba ba lamb jeex. loolu ak der la mooy ko xal moo xam ne der ngay doon. maa la wax loolu. c'est que ñaay dañ leen war a bàyyi xel. ndax boo xoolee ah, dab daan buy ñëw da nga naan du mbër waaye saa yu jàppante nga ne mi ngi noonu. waaye mi bu doy waar. xale boo xam ne dafa nekk si keppaaru champion muy Moussa Dioum xale boo xam ne dafa nekk ci keppaaru ndaanaan muy Mame Less nga xam ne naa la Mame Less lambaloog la xale bi nga xam ne moom mooy sëm waree ak li nga xam ne moom mooy parcelle mbooloo waaye Boy Dioum moo waree lébu gi mu nekk loo xamante ni lamb ji neex la drapeau Alpha Dieng nekk koo xamante ni macha allah kenn doon ko présenté ci mim réew. histoire ci làmb ci way baayam Alaaji Njuga Jeng yàgg naa bëggal Sénégal kon donc kon kooku drapeau xale da ciy fas jom pour bëgg koo jël doomu Alaaji Njuga Jeng maa jël rek way la ci Sénégal. romb na way ndax xam nga xam nga booy jum tey bu bi way la moo tax affaire bi nekk en jeu te kii dana ko drapeau bi doon yéen a bokk dëkk waaye dama koy partalee fanaan. kii moo tax moo tax xale na combat laa bëggoon ko grand combat. mérité nañ ko mais xam nga fay production dina la moo ñu àndal ñoom père Modou Bey ñoom père Mbaye Tine ay waay Samba Ndao hey ah ndeysaan ñoom ñaari faaxatal nañ oxo ñoom ñaar def nañ nañ ñoom ñaar ñëpp def nañ 3 appui ñoo ko bokkale waaw oxo ndeysaan la ilaha illallah yii seen mbàkk seen ma ko ñoom seen seen seen seen reliquat mën dem Makka. waaw seen reliquat moom ah seen reliquat de lew na lew na de. ah lew na xale yi a gàtte ngalaama fay fay waaw ndeysaan xale yi ñoo xam nañu ñoom ñaar. waaw xale ñoom ñaar daw rek jàkk daal di waaw sama ndong gemb ay waay na ma yaa daan yaa ngi way ndaanaan yaa ngi way ndaanaan bu baax yaa ngi way magi moom ma jee waaye yaa ngi way kee si moom mooy magu paama jee yaa ngi way magu kee xam sabal jee kooku alaaj jugo jang mooy baayam ndeysaan le grand baobab saa yi ma déggee Alpha Dieng rek sama xel day dem si baayam Alaaji Tunga Dieng borom baaw a baab. ndeysaan. ndeysaan. xam nga baayam daan na woy panaal. te panaal gisuma ma kenn ku koy woy. père fàttali ma loolu panaal mooy lan. panaal mooy mooy woyi cosaan. foo nga dégg wolof. mën koo déglu. ndeysaan way googu moo ànd ak xalam lay àndal ànd ak i sabar tama. muy way cosaan ñu lay bàkk. ngay way mën nañoo déparé fii ay ji ñuy fecc ba loolu dañ ko daan def loolu mooy panaal da fay dañuy sol ci way solu cosaan ñu tëgg di fecc góor ñu sol yére cosaan jigéen ñu sol yére cosaan géwél di leen bàkk ñu leen di way di dem ba pale ndeysaan mais way panaal xale yi xamuñu ko ah fanaal nag alaaji badara mbay kabaa ko ah, way na fanaal njaay loo njaay way na fanaal ñooñu ñoo la way fanaal premier janvier la ko laan ñu ne fanaalu fanaalu Ndar fanaalu Gore fanaalu fanaalu Tëngéej ak El Hadj Ousmane Diouf ah, na waaw waaw waa Ndiouga Diaga wayoon loolu naan waa Gore nee nañu ah. cosaan la ñu tànn tuddee ko fanaal maison des esclaves ñaam nga jeex na waaw waay <laughs> muy lu neex mais nag loolu ñun nammaa nañ ko ndeysaan ñoom ñaar nga cokkaas sante waaw Zem doon na cokkaas waaw ma ngay door ci kaw waaw am na lu xew. ñoom ñaar dañoo tolloo doole waaw moo tax combat bi du yomb. du yomb du yomb. waaw mais arbitre bi jàllale avertissement. xam lu tax. waaw dafa door coup rek yee. waaw ndeysaan combat. maanaam fi mu toll a jógee kii mbaru grand combat la xoolal ba xale bi li mu andi mbaru grand combat la xoolal ba xale bi li mu andi xoolal mbaru grand combat la xoolal ba xale bi li mu andi waaye xoolal mbaru combat la ndeysaan waaw borom jaalu mus dinax di ko yër maa la wax loolu tibbal ma ci waaw zam zam bi dafa xaw a diire yéen ñaar bëri ngeen xeex ngeen yàlla may la ndam nan nga bëree sa adversaire xam nga dama ko ja bëre moo tax man ma bëre nii mais ñii waruma bëre ñoom sax bilaa walaahi man champion la parcelle mënoo fa tudd cinq mbër boole woo ma si gars yi nan bàyyi mbër si daanoo rek ñu bëgg ko si làmb parcelle nan bàyyi si mbër daanoo ñu génne ko si mbër yi nan loolu man champion la ba sama yaay ñaanal la ma gërëm na ma barki Seydina Muhammad lu ma am sama la instant ni man war naa bëri grand combat aha ñu ma soxla ah ah sibir laa koy def after waaw waaw mooy xam rek xoolal nu ma ko jëbëre toog naa deux ans bëre ma xool mais xoolal booy ñoom ñëpp a ñëw mais dama entraîné de. waaw tëral muy ñamax émission bi may way ñoo bokk Serigne Babacar Sy Malick yand jaay borom laale baaxu góor laa bilaay bu lamb je saje ma way génne waaf jegew baa borom yaa def Amadou ma xula jëmale ñaan fay production yaa man di sama maam arène Sénégal yaay alaaji njuga sama baay way wi dootul niil bu lambu jo gaynde waaf ca géew ba na bu yaa daan bu lamb ja saje ma saje bu lamb ja saje ma way gaynde waaf ca géew ba mbër yu mag yi drapeau Alpha Dieng Boy Dioum ak Zëm ndaanaan yi mag yaa ngi nii wuy bi dootul fay Amadou ma xude bala ñaam jujum jujum juufe gaynde waaf ci géew maa yaa ma andi ci làmb ji ñu bokk sëriñ Babacar Si Maalik ba kër garab maam arab loo kumba caam gaynde waaf ca géew baa jëf sàjjee ma way gaynde waaf ca géew ba ne ne ne ne ne ne ne yaa ngi nii fay ma ma indi fii wii ju ñu wii ju fee Ngom Bambilor ajaratu Ndeye Ngom Bambilor mooy sa maam foog naa ne woy lamb ajarat ajaratu Ndeye Ngom Bambilor mooy sa maam naa ne woy lamb ci laa judd moo jur alaaji njuga ma jur kon ci lamb ji te woyu ma woyu lamb ba ñibbi Ndeye Ngom Bambilor dina ma mere lool lii ma woy ni ci laa judd fay production nag moo ma boole ci lamb ji ma koy ñaanal yàlla drapeau bi yàlla na doon ay at yu bëree bëri. ku ñu tuddee làmb dinañu ñëw ànd ak mbooloo dinañu joxe xaalis dañu way loolu mooy ngéwal kon làmb ji yàlla na ko def at yu bëree bari ma ànd ak sama kilifa ala jëm ak moo jur sama yaay sama cousin yi ñoo doon tëgg nii paatee ngi nii sama jabara ngi nii amaat famille bi yëpp laa àndal ndey ngoom Bambilor nag ku mu jaboote foo nga way wañu wayu panaal est-ce que yaa ci tànk maa ngi ci tànk yi te dinañ ko dekkalaat ci Sénégal d'ailleurs jamono yële passé rek def naa ko gore delloo cosaan. waa gore nee nañu cosaan la ñu tànn ñoom di ko fanaalo maison des esclaves jam ga na